TFM yàgg na def lu baax ndax nañu waxante dëgg TFM li muy fay journaliste yi amul beneen télé bu koy fay journaliste nañu waxante dëgg ñun loolu lañ soxla ñu mel ne ay Pape Cheikh Diallo nañu waxante dëgg yàgg nañu am ay concept émission yoo xam ne day yokk koom-koom réew mi ñun loolu lañ soxla Pape Cheikh Diallo ñaata nit la yóbbu Grand Théâtre la defal Grand Théâtre ndaanaan yu jigéen yoo xam ne xëy na bu doon ñoom duñu mës a def Sorano duñu mu def Grand Théâtre ñëwuñu fi nag pour attaquer TFM ndax nañu waxante dëgg Youssou Ndour am na plus de 400 employés xaw ma sax ñaata employés la am vraiment contribué na ci réew mi waaye nag nañu waxante dëgg Youssou Ndour dafa dem ba ci biir mu affaire bi yenn bi diis ci moom ndax moom toog na fii defe naa 2016 la mu ne 125 millions par mois moom la ñuy génne rek pour rek fay ñu fay liggéey te Youssou Ndour du dàqe Amina Poté wax na ko Youssou Ndour du dàqe bëggul dàq keneen xëy nag looloo tax TFM xëy na amatul moyens yi bu ñuy filmer wiiri wiiri yi du ñu am caméra yu bëri wala du ñu am ay caméra HD ndax TFM des fois da ngay gis YouTube bi yenn émission yi ñu wane ko du doon sax HD image yi du leer day am boo gis boo gisee image bu am ñaari tere yu ñuul rek xamal na loolu du du du HD loolu nag TFM war na ko dépassé mais xëy na yéen bi moo dis ci ñoom Youssou Ndour waaye nag loolu warul tax ñeneen ñi daal di leen romb boo leen deful ndànk Nafi dina leen dépassé. ñu mel ne ay DJ Boubs foofu laay mujjee Youssou Ndour ñun lu ñu soxla mooy ni nga def ba jël ay 400 employés nga continuer ko. mais Youssou Ndour ci boppam nee na boo gisee sénégalais xale yi liggéeyuñu xam lu tax parce que dafa am lu ñuy wax accaparement xam man contre moo DJ mais dama gis ne DJ Boubs mi ngi def euh, euh, Dakar ne dort pas seen petit gàllal di DJ Boubs waratu ko def émission boobu lay di digg DJ Boubs waru ko def ndax Tafa Gueye gën a xam làmb DJ Boubs mi ngi. Euh, King FM la defe naa mooy rajo rajo Youssou Ndour bu bees ba DJ Boubs mi ngi fanati mi ngi fépp mi ngi def ay publicité fi mu nekk xam nga DJ Boubs lan la war a def seen petit gallé waratu ko présenté nañ ñu jël xale comme émission xale la nañu former benn xale bu am vingt vingt ans vingt ans vingt cinq ans jumeaux yooyu par exemple war nañ ko mën def PNG war nañ mën def euh, euh, euh, seen petit gallé parce que ay xale lañu xam nga il faut ngeen may xale yi seen chance ñun loolu la ñu wax

bu leen ñàkk fayee acteurs yi war nañu mën a xam acteurs yi ñaata la ñuy fayee ko États-Unis képp kuy acteur dina dañuy génn ne contrat bi tant de millions la am wala tant de milliards la